seen mbokkam daara Alioune Cissé moo am mbégte del si di leen nuyu seen jotaay bi ñu tuddee xam sa diine mu ci doon ànd ak yéen ci tuddee téere bi ñu tuddee al axdariyu fi l ibadat ala mazhab imam malik radiallahu anhu dayoo woon na nag ñu jël nag yéen ci téere bi lu toll ak juróomi dars kon tey ñu war a ñëw ak yéen tey suñu juróom benneelu dars ci téere bi biñ fiy mujj nag ñu ngi taxawoon ci borom téere bi di wax naan wala yaxillu lahu an yafaala filan xata yaclama xukma allahi fihi wa yasal alulamaa wa yaqtadi bilmuttabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu la wax ne wala yaxillu du dagan lahu ñeel mukallaf an yafaala muy jëf filan benn jëf xata yaalama ndara bu dafa xam xukumullahi atte yàlla fii ci jëf ja mi ngi wax ne daganu ci benn mukallaf muy sóobu ci benn jëf wala muy jëf lu mu mën a doon ndara bu ba laa cee sóobu dafay xam yan atte la ci yàlla teg loolu mooy li jaadu waaye mu ne ko bu xamut ni muy def mu ne boo xamut wa yasala na nga laaj al ulamaa borom xam-xam yi ndax borom bi moo ñuy wax ne fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuun ah bu ngeen xamut na ngeen di laajte waaye bañ ci tëñax tëñax yi dem rek xamoo dara di dem rek loolu jaaduwut kon moo tax nee na boo xamut na laaj na laaj boroom xam-xam yi waaye nag wa yàqtadi na ngay roy bil muttabiina ci way toppi li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam boo demee bay jëf nag na ngay dem xool kuy jëf lu méngoog sunna mooy li yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa jàngale woon nga ci ginnaawam waaw da xool koo xam ne mi ngi jëf lu méngoog sunna nga dem roy ci ginnaawam pourtant moom wax na la da booy laaj dama laaj boroom xam-xam waaye neen la booy jëf dama xool kuy jëf lu méngoog sunna nga door a topp ci ginnaawam ndax foofu dañ fay déggee ne kon borom xam-xam bi mu la laaj loon amaana la koy laaj ci wàllu diine mu la koy leeralal moom jëfewu ko moo tax boo demee bay jëf nag boo ko laajee ba mu xamal la booy jëf dama nga xool koo xam ne mi ngi jëf lu méngoog sunna nga topp ci ginnaawam yaakaar naa foofu lañ taxawoon mu lay jox misaal gaa yu baax yooyu nga xam ne nag ñooy jëf lu méngoog sunna mu ne allazina mooy gaa yi nga xam ne yadulluuna dañuy tegtale ala taatillahi ci topp yàlla waaye wa yuxaziruuna ñu lay moytandikaloo min tibaa'i seytaan ci topp yoonu seytaane mooy ñu baax li nga xam ne wala mooy sëriñ ci nga xam ne koo ci demoon ziyaare ji boo yeggee ci moom boo fay def cinq minutes sax dana la waat ci yàlla wala dana la nammaat delloowaat sa xel ci yàlla waaye naka noonu mboolem xeeti ah, yoon yi mbon yi dana la ko moytandikuloo ci 10 minutes ya nga fay def wala ziyaara bi lu mu gàtt gàtt boo demee moom dana la delloo ci yàlla fàttali la yàlla waaye du nekk koo xam ne boo demee mbir àdduna rek lay wax ak yow der du doon kooku mais kii boo demee seeti ko lu mu gàtt-gàtt boo ñëwee dana la fàttali sa borom waaye naka noonu yoonu seytaan yi boo demee dana la ko moytandikuloo mooy ku mel ni ka borom ah, ibnu asil doon wax rek ki nga xam ne moom lañu tuddee sëriñ mooy koo xam ne way zabu cheikhan aarifan masalikan yaqihi fi tariqil mahalik yuzakiru llahu isa isa raahu wa yusiru l abdu ila mawlaahu mooy ki nga xam ne daal ku baax ki nga xam ne booy ànd ak moom ci yàlla mooy ki nga ki war a doon mooy koo xam ne ku xam yàlla lay doon maanaam ku am xam-xam lay doon waaye naka noonu tamit yow mi ànd ak moom boo demee ci moom lu mu gàtt-gàtt dana la fàttali yàlla waaye naka noonu mboolem yoon alkane alkande yi boo demee dana la ko moytu ndikaloo ba nga xam ne kooku bu ànd ak moom moo lay jural njëriñal àdduna jural la njëriñal àllaaxira waaye bu mu nekk koo xam ne boo demee daal moom wàllu àdduna wala day liggéey di ma jox rek lay wax ak yow bu mu nekk kooku kon daal sëriñ bi nga war a ànd ak mooy koo xam ne boo demee lu mu gàtt-gàtt moom dana la fàttali sa borom ah, la nga sàggane woon ci jaamu yàlla boo demee moom dana la ci soññaat ñaaxaat la ci pour nga delluwaat sa sa bopp boo demee jaamu jiwaat yàlla kooku nga war a ànd ak ci wàllu yàlla moo tax mu ne allazina mooy gaa yi nga xam ne yaddulluuna dañuy tegtale ala taatillahi ci topp yàlla waaye naka noonu wa yuxaziruuna ñu lay moytandikaloo ah, min tibai cheytaan ci topp yoon cheytaane mu ne walaa yardaadu gërëm ah, li nafsihi ci boppam maa la nga xam radiyahu gërëmoon na ko al muflisuuna ñu ñu falas ñi wala ñu siséer ñi loolu mooy lan mooy ki nga xam ne ah yamal xiyaama bi ñëwee andi julli yu bëri waaye naka noonu andi na koor yu bëri andi na saraxa yu bëri ba mu ñëwee ñu wan ko ay montagne yi montagne ci jëfi baaxam mu jàpp tey dana baax waaye ndeketoo bu masaan añ ba pare bu génnee ci mbedd ma ma ngay jëw ku romb ma ngay wax ci yow bu paree ku mu gis ma ngi lay jëw wala ma ngay xaste wala ma ngay saaga ba nga xam ne bëri na ba nga xam ne rek bu ñu jëlee ay julleem di ko fayee ñooñu mu doon jëw boobaa moom dafay mujj jeexal takk boobaa moom day mujj perte dem safara ayaasu billah loolu nag moom comme na koy gisee ci àdduna tey kii xam ne mi ngi jëflanteeg banque di jëflanteeg banque di fay ba fay ba mënatut lam garantoon banque moom la ñoo tegaat ci loxo boobaa moom day mujj ñàkk waaye nag àdduna mën nga amaat sens mais mën ngaa dem liggéeyewaat waaye bu amal xiyaamee moom liggéeyewaat dootu am mooy da ngay perte ba faw loolu mooy saisir nekk lu bon waaw yonent yàlla Muhammad jàngal ñu ko ci xadis ne ne su dëgg mooy loolu mooy koo xam ne jëf na jëf yu baax yu bëree bëri waaye bi mu ñëwee lim tooñ ci ay àq nit biñ ko fayee jëf yu baaxam yi moom dafa mujj jeexal kooku nag mooy ki nga xam ne mooy saisir moo tax mu ne allazina mooy gaa yi nga xam ne daat sànq neen amaaruhum seen dund yépp wala seen jëf yépp sànq neen ko fii xayri taatillahi taala ci lu dul topp yàlla mu kaw mi nekk di jëw ci dara ni ña ngi ni mel ci la nekkoon ba xëy ñi lan tey ngay dee ah boobaa rëcc yi rek moo leen ñu mujj jur rëcc la leen mujj jural moo tax nga dégg mu ne fa yaa xasratahum woo naa seen yàgg ak rëccu te rëccu dootu fa jariñ waaye naka noonu wa yaatu la bukaa ihim woo naa seen yàgg ak jooy waaye dootu jariñ dara yamal xiyaamati yamal xiyaama ñoom ñi nga xam ne lii leen fi nekkee woon daal bu yamal xiyaamee lii la leen di mujj jural moo tax daal balaa nga julli ji fexeel ba mbooleem jikko yu ñaaw yi xam ne borom téere boo xam ne ca commencement téere ba nga fexe ko dindi ci mooy li ay fen ak ak yu ne mel yooyu mu la aaye woon ci commencement téere ba yow fexe ngi julli te boo paree yaa ngi jëw boo paree la nga julli ko ci jëw ba loolu nekkul li gën kon nit ki balaa ngaa julli sa nga war a fexe mbooleem jikko yi doye ko ci sa jëm ba pare moo tax moo ne bu nasalullah nag ñi ngi ñaan yàlla moom borom téere ko jàng an yuwaffiqanaa mu dëppale ñu littibaai sunnati nabiyina ci topp sunna suñu yonent bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa safiina mooy aji ramm suñu wa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngeen ñaan yàlla ñun ñi nga xam ne ñooy xeetam mu dëppal yàlla yombal ñu ñu mën a tënku ci yoonu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax tënku ci a xéewal la ci xéewal yàlla yi ndax bu Busayri waxoon ne rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nuurun tahdi biha man tashaawu ne njub daal njub njubal yàlla la yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ko waaye nikk loo bëgg baax loo bëgg a baax a góorgóorlu te yàlla dimbali la ci munta nekk moo tax Busayri ne rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nuurun tahdi biha man tashaaw mu lay jox misaal ne kamra ay naa maa lay sa yanqilu qad ulhima maa lay sa yulhamul onqalaaw ne bëluwaane loo xam ne amut xel ñu jàppee ko ne amut xel yàlla xamal ko loo xam ne tey nit ko amoon xel rab waa ko ëpp xel mu lay jox misaal li mu ci jublu rek mooy abraha kero bi nga xamee ne yor na ñeeya ne day toji kaaba ga bi nga xamee ne ñay wi xam na ne kii dafay toji kaaba gi ñay wi dafa bañ ne mu fu côté ba kaaba ba nekk moom du fa jëm waaye Abdurahmaan mi ci kaw ñay wi moom moom dafee na ba ba ngay dàq ñay pour mu jëm ci kaaba gi pour mu toji ko waaye ñay wi dafa bañ keroog nit li muy am xel xel xel keroog ah, mala baa ko ëpp mala baa ëpp xel moo tax kon nee na njub daal njubal yàlla yàlla mooy xool ku ko neex ah, mu defal la ko kon xam naa kon ñu ngi doyloo lool ñëw jaaraat ci jaar bu gaaw ci ki nga xam ne dafay topp téere bi mu ne walaa yaxillu du dagan lahu ñeel mukallaf an yafaala muy jëf fi'lan benn jëf xataa yaalama ndare bu dafa xam xukmallaahi atte yàlla fii ci jëf ja daganu ci benn mukallaf daal bépp jëf jooy jëf balaa nga cee sóobu laajteel bañ wax la lu ci yàlla wax ak lu ci sariya wax nga door cee sóobu boo xamut nooy def mu ne wa yasala na nga laaj al ulama a borom xam-xam yi boo xamut daal laajal ndax fasalu ahla dikri in kuntum laa taalamun la borom bi wax waaye nag noonu wa yaqtadi nag na ngay roy bil muttabiina ci way topp li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam boo rey na xoolal ñi nga xam ne ñooy jëf lu méngoog sunna nga topp seen ginnaaw mu ne allazina mooy gaa yi nga xam ne ta allazina mooy gaa yi nga xam ne yaddullu na dañuy tegtale ala taatillahi ci topp yàlla waaye naka noonu way xaziru nañu lay moytandikuloo min tibai cheytaan ci topp cheytaane mu ne wala yarda du gërëm li nafsihi ci boppam maa la nga xam ne radiyahu gërëmoon na ko almuflisuuna ñu ñu falas ñi mooy ñu ñu sisir allazina mooy gaa yi nga xam ne daat sànkoon neen amaaruhum seen dund sol seen jëf yëpp sànk neen ko ci lan fii xayri taatillahi taala ci lu topp yàlla mu kaw mi mu ne fa yaa xasratahum woonaa seen yàgg ak rëccu te du fa jariñ dara waaye naka noonu wa yaatu la bukaa'ihim woonaa seen yàgg ak jooy waaye du fa jariñ ci dara yowm alqiyaamati yowm alqiyaam mu ne nasalullaha ñi ngi ñaan yàlla subhaanahu tudd naa sell ak yàlla xa am ñu waffiqanaa mu dëppale ñu moom yàlla litibaa'i sunnati nabiyina pour ñu mën a topp sunna si yonent bi muy muhammad sa alayhi wa sallam wa safiana mooy ajram suñu wa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla daal ak ñun ak yéen ñuy topp téere bi ak mboolem jullit mu yàlla dëpp dimbali ñu ñu mën a teg suñu tànk ci fa yonent yàlla muhammad tegoon kon xam naa kon ñu ngi ñëw wàccee foofu suñu kàddu di wax ne kon ñu ngi am mbégte di nuyu suñu caméraman bi mooy sëriñ Jiili mi nga xam ne moo nekk ci caméra caméra bi ñu ngi koy nuyu bu baax waaye nekk noonu di jaajëfal mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci site bi di leen soññ tamit ngeen ah, gën di wéy ah, di di gën a ngeen gën di wéy di abonné ci suñu site mouslih tv point com naka noonu tamit xam naa kon suñu dars bi ñu ngi ñëw tegaale gum téere bi ndax arab dafay wax ne li kulli ma xaal ndax jamono ji xel yépp ci koor la jëm kon moo tax xam naa dañu ñëw tegandi fii téere bi ba ginnaaw ba koor gi jeex ah ñu ñëw nekk a ñëw ak ci téere bi ñu tuddee risaala ci bunt ba ñu wax ci baabu fi saw mi jéem a ñëw jàngalante ngeen ci wàllu koor ndax arab dafay li ne kulli maqaamin maqaal te jamono yi ñëpp xam ne ne ci jamono yi wàccaay koor la nekkoon xam naa kon ñu ngi ñëw taxoon yi foofu di wax ne li ci leer yàlla la li ci lëndam gàtt xam gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax la in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh